li am mooy li wér te wóor mooy man mi ngeen jiite ngeen fal mu leen am dara xam ni di ko di ko sikkit suma gannaaw daa suma gannaaw li ngeen ma digal ak yéen a ma fal Albert falu ma yéen ñi yéen a fal Albert bu mu gisee yéen a tax xamante nañu lu yàgg li am te wóor te ñu xam ko Albert loolu muy déclaré man ànduma ci boo jëlee tey marché yàpp nga jël marché jën jël syndicat jël marché jël marché légume jël ambulant yi jël riz lépp mu nekk borom dàll yi morom kii bopp